bu ñu sukkandikoo ci tasukaay xibaar bi di Jeune Afrique Amadou Makhtar Mbow CV wam dafa yàññ du neex lim li Amadou Makhtar 1921 fukki at ak la dem bokk ci seconde guerre mondiale ci drapeau bu France ca la gannaaw si l'armée de l'air engagée volontairement ci tout 1940 ci diirub la nga xamné modi bileb guerre mu def démobilisation ci octobre 1940 ba nopi ñu daldi ko ci janvier 1943 laata nag muy dellusiwaat di def démobilisation ci atum 1945 yeggali nak am jangam ingénieur aéronautique ci France ba nopi nak jël dogal def li di baccalauréat ci walu lettres modernes mu du di koy nak université bu Sorbonne naka nonu ci la am licence ci walum lettre d'enseignement don jiite itam ci jamono yoyu batay association étudiants yu Paris taxawal itam fédération des étudiants noirs en France. yaatum 1951 jàpp 1953 qui la donne professeur du collège bu Rosso ca Mauritanie laata nag muy doon dellusiwaat ci Sénégal taxawal fi te di jiite 1952 ba 1957 service éducation de base ñu duppee ko chef de mission d'éducation de base ci Daaru Musti Bajana Sénoudoubou ak Gaaya moom day na jàngale lii di taarix ak géographie ba ci atum 1966 rawatina ca école bi di lycée fédéral bu nekk ci Saint-Louis laata école normale supérieure bu ndakaaru mu di fa yegsi doon jiite ci atum 1965 ci Abidjan nekk ci réewum Côte d'Ivoire li di conférence yu experts yi nga xam ne ñoom la ñu jagleel ab réforme yeesal programme bi jëm ci wàllu taarix ak géographie ci réew yi nekk ci Afrique dende gi tey kàll kàllaamay nasaraan ak Madagascar Don fi ministre de l'éducation ak walum tiare ci biir Sénégal ci diir boo xam ne 1957 ba 1958 ca la nag tekki ndombal tànkam pour dem wuyu ji ci li nga xam ne nag moom moo di xeexal indépendance bu ab dëkkam ci atum 1960 ci at moomee mu daal dee nekk jëwrin bi ñu dénk wàllu éducation nationale 1966 ba 1968 laata ñu koy jox wàllu caada ak ndaw ñi qui a tout 1968 jàpp 1970. Donne député est assemblée nationale conseiller exécutif qui 1966 à conseil municipal que Saint-Louis Qui a tout 1970 mu donne sous-directeur régional bu l'Unesco de bi UNESCO éducation laata nag ñu koy fal ci atum 1974 dellu falaat ko ci atum 1980 mu nekk directeur général bu UNESCO ci atum 1974 jàpp 1987 ci nag di direction bi nga xam ne moom commission bi nga xam ne ki McBride ñoo ko rapport ñu ko dote Many Voice One wall, muy fésal ay digle yu ñu nam ngir yeesalaat day bees ak jëmale aduna bi ci walu information la communication bu yagn te ku ne mën gis sa bop ñu duppé ko nouvel ordre mondial de l'information et de la communication plus équitable ci